normalisation bu ñu ko bëggoon firi ci ci wolof tey nit ku nekk ci lépp looy yëngu rek dafa am lu ñuy woowee ay ay exigence de qualité wala ay critères de qualité maanaam li nga xam ne moom la ñuy natt pour xam ne li ngay liggéey yaa ngi koy teg ci yoon te dina jariñ li nga xam ne moo ko taxoon a jóg yooyu noonu nag dañ koy dajale daf ko ci document yoo xam ne nii kayit yoo xam ne moom la ñuy woowee norme Euh, pour bind norme yooyu nag loolu la ñu woowee normalisation donc normalisation dafa nekk activité boo xam ne da ngay dajale ci secteur bu nekk nag secteur yëpp moo am ay normes da ngay dajale acteurs yëpp ci yëngatu euh, ngeen waxtaan ci xool mhm. euh, li nga xam ne bu ngeen ko tegee activité boobu dina ñoŋ ci ñi ci yëngatu waaye itam ci ñi nga xam ne ñoom la jëm muy muy consommateurs yi permettre tam autorités yi ñu mën a ñu mën a réglementer yow yaa koy bëgg yow kër liggéeykaay bi wala yéen yéenay xool daal di ne ah war nañu euh, saytu kër gi pour defal ko certification. alors euh, certification mooy mooy fànn mooy li nga xam ne mooy ñëw après norme bi euh, pour def ay normes pour revenir ci sa question ñi nga xam ne ñun ñooy ñi nga xam ne ñun ñooy organisme de normalisation yi dañuy déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi muy gouvernement yi dañuy déglu secteur privé bi dañuy déglu consommateurs yi. Eh, waaye tam bu amee lu lu xew best ci ci ci ci ci àddina ci jamono eh, mën nañ woo acteurs yëpp ne leen ah eh, lii de ñëw na xëy na ak expérience am betul li lii aman ci amoon ay normes yoo xam ne ñëpp ci la ñuy tënku dina facilité déploiement comme intelligence artificielle bi ñu doon wax bi doon kon mën juga jóge nyun dapat bok dafa bokk ci suñu liggéey at bu nekk dañuy def li nga xam ne mooy recensement besoin à normes yi dañuy laaj ñëpp fi ñuy yëngatu am na norme yoo xam ne amoon na waaye war nañ ci mën a euh, liggéeyaat wala amagul ay norme ñu ñu ut ci ay norme euh, ñu def ko ci suñuy ay ay ay ay plan d'action euh, def norme yi certification nag mooy fànn mi nga xam ne moom mooy ñu après norme bu ñëwee wax ne produit bi nii la war a mel pour nekk produit de qualité certification mooy ñu ñëw ci ki nga xam ne moom moo koy defar saytu produit am wala service am comparé ko ak critères yi na ci norme bi bu fekkente ne méngoo na ñu jox ko euh, kayit euh, buy wane ne produit bi muy def euh, respecté na. yeen yeen certification mo am ah, degré yi du ben xeyna entreprise su <laughs> Marème gën xarañ sama boss wala du am wuté côté bobu alors bu fekkenté ni ci tolo waaye entreprise bi fofu amul amul différence waye amna ay lu ñuy ay type de certification comme maa ngi doon wax certification produit. Mm-hmm. muy ndox bi ñi naan muy fruit ñi lek ma ngi wax ay lekk rek xam naa. ah waaw yow kay lekk lekk <laughs> bëgg a mi ngi noonu waaye ah muy muy muy kër bi ngay tabax euh, euh, brique yi ciment bi ak yooyu yëpp. Euh, ay produits la yoo xam ne dafa am yu ñu ay norme de spécification technique yooyu boo di certifié loolu la ñuy certification de produit. Hmm. maanaam da dafay saytu qualité intrinsèque bu produit bi par rapport ak spécification yi mu war a am mu am lu ñuy woowee certification système. certification système nak boko waxé bo boo ci ci këru kay bi du né produit am bi ngay saytu waaye organisation bi ngay saytu waaye ñu japp né bo boo certifié organisation wa entreprise bi bu féké né c'est de qualité par rapport ak norme de système de management yi da ngay am jortu bu rafet ci entreprise bobu euh, capacité mettre euh, sur le marché des produits de qualité moy par exemple euh, certification ISO ISO 9001 mmh. am na am aussi lu ñu woowee certification de compétences maanaam euh, nit boo xam ne mi ngi liggéey ci ci euh, ci benn fànn euh, ñu ñëw jàngal ko defal ko examen pour wane ni kii lii fii muy liggéey am na am na capacité mais lan lay lan lay tekki ci ci biti maanaam si peut-être ci sous région bi wala ñi nga xam ne yeneen entreprise yi nekk biti réew soo amee certification lan lay tekki certification boobu en général moo lay permettre nga mën a pénétrer yenn yenn marché yi ndaxte euh, bu ñuy wax norme euh, dafa nekk loo xam ne dafa dafa universel waaye dafa nekk loo xam ne en réseau lay lay doxee euh, norme yi ñuy def fii ci Sénégal day jël en compte norme yi ñuy def ci CDAO di jël en compte norme yi ñuy def au niveau africain waaye tam au niveau international ba tax na même dans les accords de l'OMC dañuy ñaax réew yi mhm. bu ñuy def ay normes national surtout ci ay produits wala ay services yoo yoo xam ne dafay nekk ci échange euh, internationaux yi dañ naan leen ñu conformer wu ci norme internationale bi loolu mooy permettre bu ñu ci marché bi euh, ñëpp yam euh, nuñ leen di nuñ leen di jugé bu hmm. boobaa tey bu ma certifié produit fii ci Sénégal bu demee États-Unis kenn amul sañ-sañu ne produit bi du fi dugg loolu OMC OMC non la ko non lañ ko mëna mëna mën kon certification bi da fay jox produit bi image de marque waye tam da koy permettre mu mën pénétrer ay ay ay marché hmm.